Fama Dione yéen kay yeeg Mamadou Mahone Ndiaye. Abdou Thiam moo ne ci machine yi mbokk yi nuyu nañ leen rafetlu seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaar yi ñu tàmbalee kook moom li njiitu réew ma woon di président Léopold Sédar moom moomeelam dañu ko bëggoon a jaay waaye antuwul woon am na nag benn table bu ci euh, jotaru ci jaay nañ ko benn milliard ci sunu koppar Aliou Sow ministre gi ñu dénk wàllum euh, culture moo ko xamle ñu teewlu kook euh, Omar Mbow moomeelu président Senghor lu jiitu sax li mujj am demoon ba jël daamaaram bëggoon koo jaay mu yëg ko waxu ci sax dafa ñëw jëndaat ko jox ko Sénégal mu moom ko bañ keneen muy tàbbi ci yeneen yoxo bi mu déggee ne aussi ñeen fukki euh, moomeel ak benn yu président Senghor demoon nañ ba war koo jaay jaayum pénc mooy teg fa ne ku bëgg waxal ñaata ngay fay ñu déggoo ca loolu mu ne loolu du ko fekkee du ko nangu du ko seetaan ci la ma ñëw yónni ma France ma lëkkaloo sunu ambassadeur ba nekk France mu ne ma lu laaj. ci waxtaan ci diisoo ci yoon ak jóg lëkkaloo ak ñi jiite France na ngeen ko def di ko sàmmal boppam moom ci boppam bañ ko defee aussi waxtaan ak ñooñu te may fàttali ne lu jiitu loolu benn tableau peinture boo xam ne ni président moo ko moomoon Senghor mais ci fukki simili benn jaay nañ ko junnee million mooy milliard boobu kon bu nekkee ñeent fukki àll ak benn la bu ñu yéexoon wala defoon ko ñoo xam ne dañ cee yoxoxi ñaata milliards la la la nar a jàll que taskatu xibaaru France yi vidéo ñëpp a nga doon mbambe ñëpp ñëpp a doon mbambe di ci wax mais ñu def ci lu président tegtale ni ñu ko waxee yàlla def na loolu yëpp ñu ngi ci fay téeméeri million ak juróom benn fukki million lañu fay pour daal di amal loolu mu nekk moomeelu Sénégal benn Samba Boy benn yàqkat kenn ku bëgg a euh, foyee Sénégal moomu ko jëfandikoo ko ci loo xam ne méngoowul ak jaar-jaar daraja ak mandarga président Senghor loolu ñu ciy gërëm président Macky bi nga xam ne daf ñoo gën na jàngalaat la mooy bëgg sa réew la mooy fonk sa réew la mooy màggal sa taarixu réew. mu nekkoon kàddu Aliou Sow ministre gi ñu dénk wàllum culture bulletin administratif bi ñu nekk ci di defar gannaaw lakk gi mu lakkoon euh, liggéey ba nag daanaka léegi mu noppi fi lekk yu at mi daañ ko mën a euh, jëlaat jëfandikoo waat euh, loolu di ay kàddu yi njiital patrimoine bâti bu nguur gi moom Yaya Abdoul kan nee na nag bu ñu toxoo ca building administratif boobule. na mën a tax ñu fay bailleur yi nga xamante ni amel nañ leen euh, ay arriéré yu toll ci ñaari at ñu teewlu ko kàddu yi mu ma Makumba Bey beneen mbir aussi bu tax factures yi yokku xam nga building administratif bi dafa amoon problème mhm. léegi service yi fa nekkoon encore il a fallu que ñu loué pour pour reloger leen ñooñu aussi incha allah defe naa fan yii di ñëw comme que travaux yi pare na dinañu transférer service yooyu mun a encore wàññi eh, bu baax a baax location boobu mais li ma lay wax rek solution structurelle bi mooy que ñoo mën a développer projet yu mag comme li ñu tàmbalee def ci région yi avec les ISFER et Dakar surtout Dakar mooy euh, problème bi. léegi building rénovation bi pare na. pare na pare na pare na incha allah déménagement bi dinañ ko programme dañoo bëgg avant la fin de l'année bu soobee yàlla service yi ñu génne woon foofu yëpp ñu delloo leen résilier convention loyer yu ñu doon fay ci loolu. léegi yow ñaata nga ameel ñi nga xam ni ñoom ñoo lay luye. yoreel lu bari parce que ngi. à deux ans derrière dafa a ay ay retard de paiement demoon nañu ba stabiliser à partir de deux mille vingt parce que en deux mille dix neuf dañoo fekkoon foofu des arriérés de presque trente cinq milliards yàlla def sur instruction du président de la république euh, son excellence monsieur Macky Sall ñu lever fonds yu bëri ak politique banque facture boobu. mais léegi avec les retards de paiement ak problème yi ma la wax fii léegi. non mënu ma la wax kañ laa leen di fay mais ñu ngi ci benn opération pour pouvoir lever les fonds et bu ñu yàlla mayee lu ñu bëgg incha allah. Hmm. balaa fin d'année bi ñu éponger dette yooyu loolu mooy suñu mbébét. ndax ci leneen mu di yokkute njëg yi ci marché bi ak luyaas gu seer gi donte sax am na luwaa bu newoon daal dañ fa la ñuy jaaree ngir wàññi luyaas bi teewul. tey la luwaas bi euh, gën a seer ak commerçant yi nga xamante ni dañoo lank ne duñu appliquer prix yi ñu homologué yooyu yëpp nag euh, député yi àddu ci euh, démb jëm ci ministre bi nga xamante ni moom la ñu dénk njënd meek njaay mi Abdou Karim xam xamle na ne nag njëg yi Sénégal boo ko méngalee ak yeneen njëg yi ci yeneen réew yi daal Sénégal moo gën a tuuti lay njëg ministre du commerce am na it kàddu yu mu yëkkati jëmee ci njëgu courant bi Omar Mbow. yombul woon tey ji ci ngoon ci jëwriñ bu ñu dénk wàllum jënd ak njaay ca assemblée nationale Abdou foofa Fofana la député yi daal di puus ba mu sës ci miir bi ndax dund bu cher yéeg njëgu dund gi kon ak it yenn commerçant yi ni ñu bañee wàññi prix yooyu lépp daal di nañ ko wax fii tey ci pencum ndayu réew mi ci noonu nag la njiitu réew mi daal di jox jëwriñ bu ñu dénk wàllum jënd ak njaay ay woto yu bari ngir mu amal ay contrôle ñeel agent yi Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly ne ay ree la ko defa joxe na la ay oto oto yi moo xam naa oto campagne loolu moo xam naa ko parce que xam na ni fii ak ñetti weer moom mënu leen fi maanaam jël oto yi jox ko ñu ko war a jox pour que maanaam ñu mën ko roode roode bi jaar yoon xam naa ni ko oto yi bu ma xamee mat numéro matricule bi dinaa xool moom daan jaar Tuuba wala jaar Tuuba location bi nga xamante ni ñëpp jàppoon nañ ne dina gën a wàññeeku ndax dogal yi nga xamante ni nguur gi jëloon na ko ba léegi wàññeekugul kon dafa gën a yokk ndaxte ay borom kër yu bari dañ ko bañ a jëfee bu ñu sukkandikoo ci baaragay nag dafa mel ni nguur gi xamul fu muy teg tànkam parce que état bi amul pouvoir yu ñëw baaragay ñu wuti xaalisam ñëw tabax këram mu ne ko par force di nga wàññi nit ñi li ñuy def mooy da ngay ñëw ni appliqué naa trente pour cent de réduction yi ñu ne la d' accord bailleur bi génnee la këram bu lay dugalaat këram yokk ci loo xamante ni moom manque à boobu dana ko mën a supporter c' est comme ça que ça se passe ministre donc jàpp naa ni war ngeen xoolaat feneen foo xamante ni fi ngeen di agiré pour mën a régler définitivement li nga xamante ni moom mooy moom mooy problème boobu. li les député di wax yépp amul dara lu ci dégg bi ñu sukkandikoo ci Abdou Karim Fofana njëkk yaa ngi woy di yokk naam waaye nag fi ci Sénégal buñ ko méngalee ak yeneen réew yu nekk ci àdduna bi nag xel war naa dal. sur les prix vous l'avez noté. depuis ba léegi gis nañ ne njëg yu bëri ñu ngi yokk ci àdduna bi yëpp réew yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu wet maanaam sous région bi dañuy laaj saasu ne ñun nan la ñuy def rek ba suñu prix yi yokkuwul benn yoon ndax boo xoolee dëwlin gi 20 litres bi nga xam ne ne moom lañu gën a lekk fii ci Sénégal ci àdduna bi mu ngi jar ñeent fukki dollars. waaye fii ñu ngi koy amee ñaar fukk ak ñeenti dollar lii di suukar si wax nañ tamit wàllum fer à bi nga xam ne ne ñun bokk nañ ci njëg yi nga xam nga xam ne ne ñun fii Sénégal bokk na ci li gën a yomb ciment bi tamit ci Afrique soowu jant bokk nañ ci ñi nga xam ne ñun ñoo ci gën a yombale ciment li muy jar fii. ci dogal yi ñu jël ngir defaraat njaay mi ci boutique yi nag Abdou Karim na ne nguur gi du laaj ci ni nu mel ndaxte dina def kéem kattanam ba rek appliqué loi bi lu jëm ci seeraayu courant bi nag jëwriñ bu ñu dénk wàllum jënd ak njaay daal dina xam le ni dina daal di wàññeeku bu baax a baax fii ak ay bës yu ñu jëm. Abdou Karim naa ci mbirum courant boobu lee Omar Mbow euh, dafa ne daal bu ministre bi ko yore euh, bi ñëwee assemblée daal du ñàkk daañ ci waxtaan euh, nu mu gën a yaatoo su ko defee ñu xool nu ñuy def ak njëg yooyu le ñu euh, delluwaat ci rapport bi nga xamante ni Union européenne def na ko mi xam le ni daanaka ci Sénégalais yi téeméer boo jël ñaar yee yëpp daal jël nañu ay gaal wuti dund gu gën fële ca Europe euh, ministre gi nga xamante ni moo yore kàddu nguur gi di Abdou Karim Fofana moom euh, gis ne daal ñu bëri dañ jàpp ne fii ay ndaw yu bëri yu Sénégal bàyyeeku nañ fi dem loolu wane ne nag. politique bi dafa xaw a doy waan ngir ñeel xale yu ndaw yi loole nag Abdou Karim Fofana am na nu mu ko euh, gisee ñu teewlu ko ci. Union européenne li mu wax ci ay rapport mooy ñay wàcc Italie ak Espagne di dugg ci gaal yi nee nañ Sénégal boo doon calculer xayma ci ñi nga xam ne classement bi la Sénégal lam fa andi mën nañ ne mooy dix-huitième te Sénégal boo déggee ci dafa mel ni ñëpp Sénégal lañ jógee ñëpp a ñëw te doon ay sénégalais matuñu deux pour cent. ma bëgg ñu xam loolu ñaareel ba il faut ñu xam profilu migrant yi dégg ngeen ci journaux yi ñu def ci ay reportage ñoo xam ne dañuy émigré di fay six millions cinq cent xasuma leen peut-être am na lu tax mais dama bëgg ñu xam ne migration fii lañ ko fekk bëgguma tudd ay réew mais boo demoon France ñii migré di dem Suisse noonu la bëre boo demee Espagne ak Portugal ñii migré di dem France boo demee Maroc ñii migré di dem Espagne ak Portugal donc nit ñi dañ jàpp ne peut-être am na lu ñu uti ci dëkk yooyu migration bi nañ ko xalaat de façon sociologique de façon économique te ñu xam ne bëri na tamit ci migrants yi ñoo xam ne ñoo xam ne ñu ngi utiliser tamit ay fonds ak ay investissement waxuma loolu kese la waxuma tamit ne waxuma tamit ne tamit difficulté ak économique amu ci mais li ñu war a xam mooy migration ni mu demee léegi lu ñu war a setantal la ndaxte ce ne sont pas seulement des causes économiques mais war nañ xool ay causes sociologiques. kaddu yi Abdou Karim Fofana démb ci assemblée nationale bi muy défendre projet de budget ñeel. Euh, exercice su deux mille vingt quatre pétition bi ñu fi defoon ngir bëgg bateau Aline Sitoé Diatta teguwaat ci géej gi jëlaat yoonam diggante Dakar ak Ziguinchor résultat yi nag ëpp na juróomi junniy signature lépp la ñu dëxëñ jox ko ministre gi ngàlloo wàllum napp géej li tukkee ci koomu géej gi ñu teewlu euh, ki nga xamante ne moo sooke woon pétition boobule di Xavier jata pétition boobu bi ma lancé woon léegi am na weer ak lu ci tegu pour réclamer pour ñaan autorité yi ndax ñu delloo si bato yi yiy daw entre Dakar Ziguinchor bi ma doon déposé ki bi euh, pétition bi ci ministre bi ak euh, ci conseil économique et social waaw boobu passé woon na juróom junni yi waaye tey bi ma xoolee ñu ngi ak juróomi junni juróom benn téeméer ak euh, juróom-ñaari fukk ak ñeent signature loolu moom lu important la afin ci li ma gis loolu moo tax may gërëm ñëpp ñoo xamante ne jàpp nañ ci am na ñoo xam ne dañ ko signé am na ñoo xam ne dañ dañ ko dañ ko partagé vraiment maa gërëm ñëpp waaye tey dama jël responsabilité parce que wax joo gis dafa am fu mu yem donc euh, man dama yaakaar ne ci suñu coobere lu ñu mënoon def def nañ ko plateforme bi dañ koy tëj léegi déglu ci autorité yi c'est sûr que ñoom ci seen arbitrage peut-être que dafa am lu gën a bateau yooyu xam naa ne fii peut-être euh, ay diir gàtt nañu dellu siwaat nañu expliquer exactement lan moo waral bateau boobu taxaw pour yi ñuy natte centrale syndicale yi daanaka ñu ngi koy waajal bu baax a baax fukki fan ak ñaar ci weeru décembre gi ñu jëm euh, lanu koy amal. loola tax nag ay kuréelu syndicat yu bëri jamono ju ñu ngi ci campagne CNTS FC Cala démb sax la doon amal ab ndajeeg taskatu xibaar yi wa CNTS kilifa ya ne daal bu ñu sañoon daal ñu yee salaat au conseil du dialogue social su ko defee yam mu euh, gën ko mën a euh, doxal. andi saafara ci jafe-jafe yi liggéeykat yi Abdourahmane Diallo. confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement programme am ci lu mu ko jublu mooy boole syndicat yi waaye tamit ñu amalaat yeneen xeetu doxalin ci lu jëm ci waxtaan yi nga xam ni day xew saa yu coow amee Cheikh Diop mooy secrétaire général bi. mouvement syndical liy baaxam mooy bu jógee di xeex ba signé accord xeex ba jeex na tàkk te accord yooyu moom moo koy réglé tey jii accord di xeex. loolu xam nga kenn xamut lu muy niru li ma ci mën a lim ci ay exemple bëri na ci taxawaayu mouvement syndical ñu dem ba gis na nag taxawaay boobu manqué na lool ndax mouvement syndical dafa tasaaroo ba pare entité yi nga xam ne moo koy jox doole di rendre pertinente ay analyse am yooyu aussi dañoo séparé wu ñenn ñu bokk ci CNTS FC sax jàpp ni au conseil bu dialogue social amul benn njariñ ndax kuréel googu bi mu taxawee ba léegi amul benn problème bi nga xam ne réglé na ko Mbaye Sarr mooy secrétaire général syndicat autonome pour le développement de l'éducation et la formation te dialogue social bi nga xam ne moo waroon nekk en tan que cadre intermédiaire pour raffermir les liens diggante gouvernement ak syndicat ak relation yi gën a mën a dem pour que ñu mën a dem kanam dialogue social boobu day topp ci gannaaw gouvernement rek foo mu orienté wu mu jëm fa alors que moom dafa war a am une ligne d'autonomie pour orienter les relations professionnelles fexe ba travailler di gën a am situation sociale bu gën a looloo tax ñu ne nañ ko réformer wala à défaut carrément ñu disparaître ko parce que ñun gisuñu benn njariñ bu nga xam ne au ko par yi fas yéene ko amal le 12 décembre 2023. Abdourahmane Diallo beneen ab centrale syndicale boo xamante ni mu ngi ci campagne di euh, FGTS. FGTS nag euh, ñoom li ñu bëgg mooy syndicalistes yi gën a bàyyi xel yi tey liggéeykat yi euh, fédération générale des travailleurs du Sénégal tendance Mbalou Dia Thiam mu nga woon ci tournée fale ca Kédougou fala moom Mbalou Dia Thiam yëkkatee kaddu dénk ko suñu ndaw la fa di Ibrahima Jabaxate ñu teewlu ko. bu fekkee central syndical yi nga xam ni euh, ñoom ñoo boot syndicat de base yi bu ñu doon taxaw taxawaay bi gën taxawaay bi war bu boobaa coono yi dana mën a wàññeeku ñun nag loolu la ñu bëgg a saafara ñun en tant que euh, FGTSB toog ci place yooyu fees ko parce que gis ngeen na euh, Sidia Ndiaye ak Mballo Dia Thiam ci biir ànd gësëm am na lu bare defal nañ ko liggéeykat yi ba ñu leen di jaawale sax ak ay central syndical or duñ ay central syndical foog nañ nag loolu buñ ci jàppee ak suñu ñaata yeneen naataango yi dinañu a mën a fees suñu place xeex yi danañ mën a yomb mën a gaaw et puis ñi jàkkaarloo ñu aussi dañ xam ne ñi caaxaanuñ ci li ñuy def euh, lu mel ni Salémata amagul centre de santé demoon nañ fa loolu matul woon sax juróomi at mais dañoo fekk centre de santé bi nekkoon ci benn conteneur man waaw ah, dégg nañ nag ñu ngi bëgg a taxawal foofu benn centre de santé mais loolu war nañ ci gaaw comme ni ñu defaree tali bi gannaaw ba fukki simili ak juróom benn bootoo ci juróom ñetti waxtu ñu dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. aywa. acca ba mu may tuuti rek ñu daal di kon boo ko jublu ci liggéey bi daal di ko door rek li nga xamante ni moo di wàllu football. ak lu jëm ci coupe du monde bi nga xamante ni daal euh, ñu ngi ko jagleel euh, moins de 17 ans yi yëf yi nag ñu ngi toll ci li nga xamante ni moo di état bu euh, lii di quart de finale yi quart nag nu mu tëddee. moo di fi nekk simili yu néew incha allah 8h30 dana daal di door diggante Espagne ak Allemagne moo di huitième de finale kon bokk ci gagné di nga qualifié li nga xam moo di quart de finale ñaareel ba di ñaareel huitième de finale bi euh, fileeg midi incha allah danañ ko daal di amal diggante Brésil lay daal di doon ak ñi di waa Argentine ëllëg di samedi France mii élimine Sénégal dana tas ñi di waa Ouzbékistan beneen demi-finale wala boog euh, huitième de finale bu mujj bi incha allah ëllëg ci bu midi jotee. diggante Mali lay daal di doon ak ñii di waa Maroc di ñaaru équipe bu euh, kon bokk euh, di ñaaru équipe bu Afrique kon bokk jàppale ñu ngi toll ci nga xamante ni kon bokk moom moo di quart de finale kon bokk ko ci gañi yi nga dem ci wàllu demi-finale kon bokk noonu la leneen li nga xam te mën nañ ko waxtaane ci lu jëm ci wàllu final la ñuy football tey waaw quart de finale la ñuy football tey li nga <laughs> <laughs> <laughs> waa euh, quart de finale yi kon euh, tey xamante ni moo di demi finale voilà kay mi ngi noonu Barthélémy Ngom leneen li nga xamante ne bëgg nañ ko waxtaane ci xibaaru tàggat yaram yi ba tey wàllu football ak génération foot di yëngu ci championnat bu Sénégal ñoom nag euh, xam ngeen ni fan yi la weesu woon amoon nañu ñaari match yi nga xamante ni daal euh, dañ ko daal di forfait ne duñ ko joué la ko waraloon nag moo di ñoom waa génération ak ñii di jàmbaar dañ leen waxoon ni euh, seen match yi nga xamante ne daal dañ ko recevoir dañ ko mën a recevoir seen i terrain feneen lañ koy dem wutali loolu nag ba mu amee si lañu ñu daal di kon bokk ñoom téye seen bopp gedd ni daal euh, duñ ko def waaye ci li jëm ci yoon googule am na li nga xamante ni daal moom la ci règlement bi daal di wax dañ si daal di déglu euh, Pape Sidi moom mi nga xamante ni moo yore euh, lii di affaire juridique ci biir ligue sénégalaise bu football professionnel ci jokkoom ak Mamadou Marba dañoo dajale woon euh, bureau ligue professionnelle euh, yaatal ko nag ci club yi nga xam ne ñoo nekk ligue 1 ligue 2 pour ñu ñëw teewee waxtaan bi ñu doon waxtaan ci euh, maanaam weccoo ay xibaar maanaam information yi waxtaane ko mais tamit waxtaane ci li nga xam ne mooy tolluwaayu compétition yi ci poñ boobu nag li ci ëppoon solo ci waxtaan bi moo doon li dal académie génération foot te nga xam ne ñoom jot na ñaari bataaxalu kuréelu attekaay bi bu leen di yi xam ne dañ leen a convoqué woon maanaam dañ leen a përie woon ci terrain bi ngeen wuute ah ñaari match yooyu yoon nee na ñàkk ngeen ko génération foot tamit xamal ñu ci kayit que ni ñoom def nañ d'appel maanaam dem nañ kalaame loolu ci benn commission benn kuréel bu nekk ci fédération ñu koy wax commission de recours te ñun bi ñu saytoo texte yi muy article 163 bu règlement généraux 131 bu code disciplinaire bu fédération euh, ak article 16 17 bi nga xam ne mooy ñooy nekk ci disposition générale règlement professionnel yi ñun jàpp nañ ni li gën mooy ñu toog xaarandiku seen kalaame boobu ñu kalaame ci commission recours bi pour ñu waat mbir mi fu wànnante mu njëkk gëtam suñu demee nag ba jot bataaxalu commission de recours mu wax ñu nii la demee ci ci ñoom seen d'appel bi ñu def su boobaa incha allah ñu dajawaat euh, ci bureau Ligue Pro bi pour saytuwaat mbir mi xool ñu koy doxalee ci kaw règlement loolu la ñu ko xooloon tey te mu nekk euh, décision bu sage. lu ci mënti am rek jàppale ni génération foot dana taseek ñii di waa union sportive bu Wakam niki euh, dimanche gi ci bu 16h30 jotee ca stade Lat Dior bu Thiès ñeel li di championnat bu Sénégal. ñu daal di euh, waxtaanee euh, équipe nationale bu mag bi ak seen i taxawaay ak yenn ci ay choix yi nga xam te ne léegi ki di seen sélectionneur di Aliou Cissé mu ngi koy daal di def coow lu bëri am ñu si d'accord am ñu ci d'accordul lu ci mënti am rek euh, ki nga xamante ni moo di Youssou Ndour di artiste international moom itam ñu xam ni xam ni itam équipe nationale intéressé na ko rawatina football am na ay kàddu yi nga xamante ni jot na ko ci yëkkati moom mi nga xamante ni démb moo doonoon ganu rajo foot international. ci euh, RFI ñu déglu ko Youssou Ndour on a vu que bah, il a essayé li am na li nga xam ni loolu la essayé ginnaaw ga mu daal di changer technique def technique bi nga xam ni moo gën a classique ay xam nga ni euh, Sénégal dafa bëri ay joueurs yu man football moo tax euh, yenn saay du yomb trop loolu sax tax ma jàpp ni suñu xel du dal ndax joueurs suñu joueurs yi dañu man football trop Sénégal nag ak fu bëri sax ci àddina bi ñi xam football dañu bëri moo tax yenn saay commentaires yi ñi nekk ci mbedd mi dafay bëri lool wute gis-gis ak euh, techniciens yi fii Sénégal. Sénégal nag même boo gañee match yenn saa dañuy gis ni li nga joué baaxul nit ñi dañu exigeant trop Sénégal ab favori la moo tax euh, boo ci nekkee da am pression terrain bi waaye tamit am pression wu askan wi mbir moomu day tax euh, ba du yomb ci ki nga xam ni moom mooy technicien bi. Mais vous avez la pression du peuple. ok bu loolu weesoo ñu daal di waxtaanee championnat ci biti réew. yëf yi nag danañ ko daal di reprendre euh, gannaaw ba ñu amalee li nga xam moo di fenêtre international ngir compétition yi nga xam te moom la équipe nationale doon amal ngir euh, mën qualifier ci coupe du monde ca France tey jii ci ngoon diggante Paris Saint-Germain ak AS Monaco lay daal di doon PSG nag moom mu féete ci place bu njëkk bi lu tolloog ñetti poñ daal di dox ci diggam ak ñi nga xam dañoo di waa AS Monaco Bundesliga moo di championnat bu Allemagne Bayern Munich féete ci dana fekki Cologne tey jii ci ngoon foofule euh, ca dëkkam bu loolu weesoo ñu daal di dellu suñu réew waxtaanee lii di euh, Viet Vo Dao septième championnat du monde bi nga xam dañu koy amal ca Vietnam Sénégal nag euh, du ca bokk la ko waral nag moo di dañoo am ay jafe-jafe ci wàllum euh, koppar ak itam ci li jëm ci wàllum ressources humaines maanaam nit yi nga xam te daal ñoom ñoo ca war a yëngu loolu nag moo di kàddu maître Mamadou Diop moo di directeur technique national bu Vovinam Viet Vo Dao ñu déglu ko ci waxtaan mu jot seq ak Soda Thiam Sénégal nag euh, yóbbuwut combattant parce que comme ni ngeen ko xamee ñun euh, Sénégal moom comme structure yëpp dañoo xaw a manqué soutien de l'État c'est vrai que ñu ngi def effort ci yenn structures yi mais du yëpp même sax ci grande fédération yi boo xoolee ni ñu leen war a jàppale sax des na ba léegi. waaw mais daal war nañ loolu daal mooy suñu jafe-jafe moo tax euh, mënuñu woon yóbbu athlète parce que Vietnam non seulement dafa billet bi dafa cher te bu doon fu boo compétition yi ñuy dem fu jege yëpp des fois ñun ñooy décarcassé wu daggal suñu bopp ay billets mais bu Vietnam bi c'était un peu spécifique moo tax euh, mënuñ woon euh, mënuñ woon engagé kenn kenn mënu woon engagé wu pour mën a dem naan euh, day dem représenter le Sénégal foofu moo taxoon noon yóbbu ñu athlète c'est un problème de moyens problème mooy la woon moo tax voilà. ñu daal di ko jeexaleeg wàllu handball ak équipe nationale bu Sénégal ci wàllu jigéen ñi di waajal coupe du monde bi nga xamante ne moom la ñu nar amal ñoom sax tey ji euh, ci ngoon wala dala tey ji ci guddi incha allah danañu amal jongante xaritu ci bu 20 h ci heure Dakar seen digg ak ñi di waa France ca koy daal di amal ñoom nag euh, di waajal coupe du monde bi nga xamante ni danañ ko daal di amal ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre. ñi koy organisé ca Danemark Norvège ak ñi di nag mu nga bokk poule ak ñi nga xamante ñoo di waa Suède bokk ci yi nga xamante ñoom ñoo daal di dalal gi les compétition ànd sa Croatie ak ñi jaajëf Cheikh Tidiane. pour ñu wéy ci xibaar yi dalal xibaari aada yi ak Fama Dione. daleen nag jàmm édition 2023 bu festival court métrage Dakar Court dina am 11 jàpp 16 décembre programmation bi démb lañ ko génnee ci institut français nekk fii ci Ndakaaru ren nag beral nañu loxo soxna yi ci wàllum jury bi Moli mooy xawal événement bi. tey jii lañ doon yëgalee film yi nga xam ne dañoo war a nekk en compétition. ba pare yëgle aussi ñan ñooy doon attekat yi ñu leen wax jury bi ñi nga xam dañ fi ñëw pour xool film yi nga xam ne ñoo moom la ñu defee Sénégal ak bitim réew ci diir juróom-benni fan ñu leen di seetaan di leen saytu ba samedi bi le 16 yem ak euh, fukki fan ak juróom-benn ci weeru décembre si ngoon googu la ñuy taxaw nag wax yan film yi nga xam ne ñoo ñoo nekk film yu leen gën a marqué en tout cas ñu yëkkati benn raaya jox leen festival bi dina amal tamit ay formation ay jàngale jëmale ko ci téeméeri ndaw yu jóge fii Sénégal ak euh, ak bitim Dakar ko nag soo ko déggee mooy film yi nga xam ne dañ koy dajale ci euh, at bu ne ñu woote ay ñi nga xam dañuy liggéey ci wàllu cinéma jóge fii ci Sénégal ak bitim réew ñu woo leen na leen ñu ñëw tànn film bu digg doom bu gën a xarañ ci Sénégal waaye tamit bu gën a xarañ ci ci Afrique euh, moo tax sax ak ñu koy euh, ñu koy ñu koy def dinañ jël ñeenti xale tàggat leen ci wàllu nan la ñuy bindee scénario dinañ jël fukki xale ak juróom tàggat leen ci nan la ñuy defee archive film yi nga xam ne film mu démb la ba dajale ko teg ko pour que euh, bu ëllëgee ñu xam ne suñu cinéma wu démb mën nañ ko seetaan tey image day yar nit waaye tamit day yàq nit waaye ñun dañoo war a approprier wu dañoo war a maanaam jël suñuy image di ko di ko seetaan jamono ji ñu toll xale boo gis mu ngi yor téléphone te loolu muy seetaan ay image la war nañu leen tàggat ñu xam yoon moo baax ak yan moo bon Mody Kane ci micro Papa Ibrahima Ndiaye tey ci altuma ji le carnaval bu Ndakaaru di tàmbali fële ca Yoff et bi moo di Dakar culturel. bi nga xam ni yoof am na ko ci wàllu caada. tax na lu mel ne yoof wala lu mel ne ngor wala lu mel ne wakaam xëy na boo fa démarré activité yu mel nii dana am solo ndax dina am réussite boo xam ne xëy na peut-être yeneen communes yi koy gis te nekk ci code bi ñu ci mel ne ay Hann Bel-Air ak ñooñu euh, je crois que Fatou. dañ ci waxtaan ak moom ndax duñ ko yemale yoof ndax déwén dinañu xool beneen commune ñu xool particularité moom tamit par rapport ak programme mu programme mu carnaval bi ainsi de suite ainsi de suite de ce bu ñu fiy jógee xëy na nañ mën a dajal les 19 communes ku ci nekk gis ci sa bopp mu nekkoon Pape Maodo Diakhaté nekk adjoint ci mairie bu Ndakaaru yorit lépp lu soxal wàllum caada ak cosaan daa ngeen ko déglu nu mu gën a yaatu ëllëg ci samedi gi Pape Maodo Diakhaté mooy doon suñu gan ci seen magazine xalam indiloon mbokk yi dig daje ëllëg ak jàmm RFM sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant soumari.com Quincaillerie le Grand Jaxaay ak la maison du matériel médical 3M di kër gi yor wàllu séddale matériel médicaux ànd seeg glucomètre prodigie ñoo leen ni may li ci yéenekaay yéenekaay ak Mamadou ba woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne ak premier ministre bi fi di Amadou Ba ñoom ñaar seeni a ngi ci yéenekaay yu bari ñu xëyandool muy le quotidien témoigne journal L'Info ak L'As doore ak le quotidien mi ñu wax ne defante ba door na ci diggante Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Amadou Ba am na juróomi délégué régional yu newoon ci Mahammed Boun Abdallah Dionne waa pouvoir bi këf nañu leen kàddu yi Mahammed Boun ngi def lu mu mën ñu délégué waaye mbiri sottiwul le ndax muy Mouhamed Boun Abdallah Dionne di Mame Boye Diao Amadou Ba def na leen ko ndax am na ñu ne woon ci ñoom ñoo xam ne Amadou Ba nangu na leen suur soine ko dëggit def na ko Boun Abdallah Dionne def na ko Mame Boye Diao waaye def na ko kii di Aly Ngouille Ndiaye ndax waa ji ñu naan Thier Kaza newoon responsable politique u Aly Ngouille Ndiaye ci de Thiaroye moom waa ji jóge na ci Aly Ngouille dem ci Amadou Ba te 24 heures avant loolu di xew am na juróomi délégué régional yu newoon ci Mahammed Boun Abdallah Dionne yu dem ànd ji ak Amadou Ba Habib Niang bu kees moo njëkk yëf yi dem fekk ji Amadou Ba bu yóbbaale parrainage yi mu dajale loon Boun Abdallah Dionne yëf yi mu di déboose gi source mi ngi ñuy wax ne ci kër Mame Boye Diao fa la njëkke ne moom lu mat fukki délégué yu newoon ca moom ñoo ko ne l'observateur li tax mu jóge ci Mame Boye Diao dem ci Amadou Ba ba yóbbaale parrainage yi Adama Fall nee na li mu bëggoon mooy def Mame Boye Diao lu ko mitti te def na ko ko ndax li ko Mame Boye Diao def yëfi laas la te dinañu ko topp ci yoon ñu topp yoonu politique bi ba tey dem ci journal Le Quotidien mi xëy bind ci xëtamu njëkk ne ministre Doudou Ka na boppam directeur de campagne bu Amadou Ba mouvement bii di dogu dajaleel nañu candidat Benno Bokk Yaakaar raw gàddu gi au niveau national ak lu jege juróom-benn fukki junniy signature journal L'As xëy signé ab waxtaan wu mu def ak fiscaliste bi di Cheikh Ndiaye tuddee waxtaan wa antidote ca waxtaan wa moom Cheikh Ndiaye dip inspecteur du trésor doonit responsable politique ca lagem dellu na ci njariñ li nga xam ne décret bu yees bi jëm ci wàllu régime financier des collectivités territoriales am na ko nay net stratégie endettement ak gestion dette yi sunum réew di Sénégal ma nga ca yoon wu baax wa li mu gis ne lu baax la ba tax mu wax ko nee na Amadou Ba dal nam xel ndax bu a fi président Macky Sall la tàmbali ki war a wax boo waxul lu yàqu yaa ko yàq daanaka loolee le Sud Quotidien seetlu ci opposition bi ci réew mi ndax mi ngi ñuy wax ne yi fi xew bari mu di ay coppite yu am ca Sénat commission électorale nationale autonome rapport yu corps de contrôle yi ci réew mi def ñu koy bloqué ak règlement intérieur assemblée nationale bi ñuy caxat-caxate yooyee yëpp journal Sud Quotidien ne nañu xew na fi te dégguñu opposition bi benn yoon mu la nekk jamono ji ne ñoo ngi dégg ay nit yu dëkkee ŋàññ ak di critiquer bi te ba léegi amul kenn ci ñoom ku ñu gis mu taxaw jël défense Pastef di Ousmane Sonko ak i gaayam enquête dina kay mi ngi ñu wax ne ci manœuvre di nasaki nocc ca la ñu nekk gàtt sa gàtt sa giñ doon woote dellu nañ ca gannaaw léegi indi nañu weneen doxin wu ñu am yaakaar ne dana tax bali te ngeen ci ñoom mën a yolom sursoi nañu wax ji du lool wax ji mooy Ousmane Sonko jot loolee nag jaaxal na ñu bari ñu bari danañ amuk jaaxle tey ci xibaar bi ci libération ca Bignona la am benn waaye bu ñu naan Faabu Ramasamb ay xajam dañoo dugg ci kër benn dëkkandoom di lekk ginaar yi dëkkandoo ba dëkkandoo ba dem ci borom xaj yi di ko kalaame borom xaj ba mer ci mbir yi gis boppam jàpp dëkkandoo ba dóor ko ba mu tëdd yamu ca ne dafa jël paaka jam ko ko mu faatu sticker rapido Touba Darou Salam Caro Prestige DSL ak seen marque bi di Dekakila direction de la santé mère enfant sumari Soumari.com Kenkeyri le Grand Jaxaay ak la maison du matériel médical 3 di kër gi yor wàllu séddale matériel médicaux ànd seeg glucomètre prodigie ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. jëf jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokki yéen itam jërë ngeen jëf ci ànd beeg nun xibaar yi fii lañ ci yem ak yéen dafa pàttali. moomeelu président Léopold Sédar Senghor yi ñu bëggoon a jaay te antuwul am na benn tableau d'art bu ca rëcc jaay nañ ko benn milliard ci sunu koppar. building administratif bi ñu nekk di defar gannaaw lakk ga fa amoon fileeg njeexitalu at mi liggéey ba danay euh, noppi njiital patrimoine bati bu euh, nguur gi moo ko xamle élection yi ñuy nattee central syndicale yi ay kuréelu syndicat yu bari nag jamono ji ñu ngi ciy campagne CNTS FC Thiala yëkkati na sax kàddu démb ci ab ndaje gu mu seqoon ak taskatu xibaar yi ne faw ñu salaat au conseil du dialogue social FGTS it euh, branche Mballo Dia Thiam naka noonu ñoom li ñu bëgg mooy syndicaliste yi daal gën a bàyyi xel yi tey liggéeykat yi pétition bi ñu defoon ngir bëgg bateau Aline Sitoé Diatta teguwaat ci géej gi jëlaat yoonam diggante Dakar ak Ziguinchor résultat yi nag ëpp na juróomi euh, junniy signature lépp lañu ñu dëxëñ jox ko ministre bi nga xamante ni moom moo ngàlloo napp gi ak koom gi tukkee ci euh, géej gi. mu doonoon xibaar yi mbokk yi Barthélémy Ngom la woon ci kàddu gi du Cham ci machine bi sa Mbay ci digital bi. ñu ngi leen di ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen asalaamaaleykum jox leen daje ci kanam tuuti ci seen émission pencoo jërë ngeen jëf